si di remercier personnel APROSI yëpp rawatina suñu jigéen yi ndaxte ñoom ñoo am initiative bi bëgg a organiser sensibiliser les femmes lu jëm ci wàllu cancer. li nak mooy du du bulet ndaxte bii mooy suñu deuxième édition. suñu jigéen yëpp teew nañu pour vraiment ñu xool ne li activité la boo xam ne bu am solo la ndaxte cancer moom xam nañ ne lu maladie la boo xam ne bu surtout àdduna euh, bi yëpp. moo tax ñu jagleel octobre bi ci lutte contre le cancer. ba consultation bu ñu mujj def démb ci Kër Massar ñu ngi ci euh, juróomi junni jigéen yu ñu seet euh, loolu ñu ngi ciy sant yàlla des na ba tey euh, tamit distribué nañu ñaari junni bon wu mammographie subventionné distribué nañu aussi ñaari téeméeri bon wu mammographie gratuite. Nous, femmes à cause yi dañu organiser journée depuis que lañ commencé avec les autres femmes de, toute la plateforme et même du domaine industriel donc pour lutter auprès de la LISCA euh, euh, au, passage nous avons ngi euh, présidente bi engagé pour lutter contre le cancer tay dañ def journée def journée aussi en même temps mammographie pour les femmes ñuy ñaan yàlla di def ay fléau bi